barki maam jaar bu sa sarre nga. yaay yaay kon yaay ci forme taay de. Eh, lekkee moom li mooy avant combat. avant combat. Sir Bantamba. après combat Sir nañ leen mbokk yi le dañ ciy taxrib le 6 bis la boo xamante ne àdduna mi ngi koy waajal Sénégal mi ngi koy waajal Papa Sow ak Siteu def nañu jàkkaarloo waxtaan na nañu ñoom ñaar waaye dañuy ñëw ci dernière semaine bi nga xamante ne ci lañ jëm ci seen combat ñu waxtaan ak ñoom xool seen état d'esprit seen état de forme fan la toll ndax yu bëri waxtaanee wuñ ko woon Papa ak Siteu mbokk yi ñu ngi ci plage yu Parcelles Papa maa ngi lay nuyu. Modou ñu ngi di nuyu mbokk téléspectateur 2STV yëpp di jaajëfal euh, Sénégal ak diaspora bi yëpp quoi. à une semaine du combat. nga def jàkkaarloo ba pare sa digganteeg sa adversaire bi nga ci génnee noo déggee coow li noo ko gisee. waaw sant yàlla rek xam moo làmb moo baaxoo coow nag quoi. moom dafa baaxoo coow. te def coow dafa bokk ci làmb. ah mais dañ koy jël côté positif rek li nga xam ne lépp positif la ñu koy jël. Mhm. côté négatif bi ñu xoolaat suñu bopp rek. ok benn mhm. ba tey du combat. préparation jeex na. waaw fu mu nekk moom lu waaye amuloon ba tey moom wax dëgg yàlla mën nga ñaani quoi. saa hmm. réglage rek waxtaan ak say coach say am di jàmm say xarit say conseil ku ne lu mu am rek mu indil la nga jël. moo hmm. fi des quoi. ci sa préparation ma gis la génnoo dëkk bi fii nga ko fi nga préparé. lu tax. waaw mais condition bi dafa réunir quoi. xam nga condition yëpp réunir nga am jàmm am salaam mën nga fi toog quoi. mais bu tey bu laajoon leneen tamit ñu dem defi loolu quoi mais xam naa ne moom fii bu ñu toogoon tamit ak. Euh, ñu ma àndal ñëpp muy coach yi encadrement micro bi ah mm. ñu àndal ñu ñëpp ni nga koy gisee comme d'habitude mm-hmm. sa xel day dal daal di nga mën a préparer wax dëgg yàlla condition yu réunir bu ma ko déggee mooy su ma nee condition mooy moyen su ma nee condition mooy espace de travail bu baax bu ñu nee condition mooy nga mën a am récupération bu baax est-ce que loolu yëpp réunir na fii au Sénégal waaw surtout loolu quoi surtout récupération bi mm-hmm. liggéey bi ngay liggéey fii moo ngay liggéey fee mais nopp bi dinañ mën a noppalu quoi. Mhm. waaw dinañ mën a noppalu quoi. loolu mhm. moo seen mooy lu mu solo ci affaire bi yëpp quoi. combat bi préparation bi gudd na de. waaw gudd na moom. Mhm. gudd na mais munoo préparer lépp quoi. ok da nga koy teg ci ay tempo rek. su ma la waxoon phase de préparation yi lan la di nga ma ko mën wax période bi. waaw man mën naa la ko wax. waaw waaw xam am jamono boo xamante ni forme. ok defaraat yaram bi. waaw nga dem euh, après nga dem ci endurance. dem ci foncier bi. mooy vitesse ak résistance. waaw ci la dem force après nga ñëw vitesse ak résistance si lañ toll nii léegi nag ñu ci ñu ngi toll. ok eh, combat bi tolluwaayu combat bi Papa mhm. ci yow. parce que combat bi am na fu mu toll ci yow. combat am na fu mu la mën a yóbbu comme waxtaanee woon nañ ko keroog ci jàkkaarloo bi. combat dafa am solo ci yow sa toll fan la toll ci yow. waaw comme d'habitude rek ndax bon combat moom mënut a weesu combat rek. mën nga bëri combat boo xamante ni am na coow na nga ko yaakaaroon du demee noonu bëri combat boo xam ne amul coow nga dem gis fa leen loo xamante ni moo gën a euh, xaat comprendre nga mm, mm. bon Siteu nag adversaire la comme adversaire yëpp moo tax ne condition yi liñ daal li ñu ci war def yëpp ñu ngi ko ci def quoi di ñaan mi am ndam yàlla defal ñu ndam mais moom problème mu amul lépp adversaire bi posé wul problème non adversaire bi dañ koy jox cëram ba mu mat sëkk jox cëram ba mu jox ko wàccuwaayam xam ne moom champion la mbër la lamb moo ñu boole ñu war a bëre dañuy bëre loolu rek kese la amul leneen jox jox nañ ko ba mat noo gisee faveur yi la jox surtout moom waaw moom jox nañ ko ay faveur am ñu ma jox faveur am ñu koy faveur ba dañuy analyser xam loo xamante ni arrangé na ko am loo xam ne man la arrangé am loo xam la arrangé am loo xam la arrangé ci lamb a ah non non gars yi séddoo nañ ko nag gars yi moom séddoo nañ ko am na xamante neen nangam nangam ñi ne côté bee passé nangam nangam dañuy séddoo affaire rek ndax ku nekk sa xalaat nga am rek a ah. hmm. waaw ku nekk da ngay gis analyser rek quoi ñëpp mun ñu bokk fi mu euh, longueur doon mënul yam ko hmm, hmm. ma seetlu ci sa combat ak Siteu une jeunesse bu ciy juddu. su ma ne une jeunesse mooy xale yi ko tëgg. xale yi war a seetaan si. ñu xool bu ñu seetloo li ci nekk ñëpp ay xale rek ñoo ñëw ci combat boobu mu mel ni bis boobu. am na message bu bis bi di lancé. loo si loo wax si loolu. waaw di jaajëfal rek promoteur bi ak euh, muy Mansour Ba ak waa jàmbaar euh, production yëpp. Mm-hmm. ñu xamal Sénégal yëpp euh, promoteur bi teg làmb xale la comme ñëpp. ba tax na dañuy muy parcelle muy jàmm gën. Mm-hmm. ni ma koy defee na ko Siteu defee noonu ni ko samay mbokk ay defee dem na ko ñoon defee noonu. ndax xale yi amuñu loolu làmb bu ñuy dem tamit nan leen ñaax ci ñaax boo xamante ni dañuy dem uti uti nag du caaginu uti loo xamante ni dama war am par force dañuy dem foo yi lii loisir la duñu dem bëggal seen bëggal seen xol benn dimanche nga dem sañsee bëggal sa xol seetaan tàccu fecc ree looloo ci am solo mais du guerre affaire du guerre làmb la Papa Sow bu paasee beneen ay yeneen affiche ñu waar suñu kanam ay yeneen ay yeneen yeneen ñu ñëw ci ñëw boo xamante daal ñëw bu ñëw bu gën a tegg ñëw bu gën a rafet xam ne làmb moom lépp dañ ko war a rafetal man sa loolu laay loolu laay dénk parcelle loolu laay dénk jàmm gën bu defee gars yi gën a mën a ñeme làmb ji bu dee da bëgg sa mbër tamit ëllëg keneen tëgg ko keneen tëgg ko tamit nga wane jikko joo xamante ni gars yi dinañ sawar ci moom. bu ñu waxtaanee ci làmb en général message bi loolu benn message booy am pour lancer ko la famille de la lutte en général. waaw lan lay nekk. waaw ñuy dégluwante surtout. Hmm. ñi nga xamante ne tey jiital nañu mooy suñu ay njiit. particulièrement CNG bi ba ci keroog ministère ba keroog mu egg si njiitu réew mi. nañ déglu jeunesse bi nañ déglu mu axlu làmb ndax xel du doy xam-xam moom xam-xam xale mën na ko for comme mag mën na ko for bu ñu déglu wantee rek affaire bi dina romb fii ndax làmb waroon na romb fii bu yàgg. làmb war na jóge niveau bi. bu yàgg bu yàgg heure war na fekk làmb mbër yi nekk ay mbëri yi nekk ay gën ay buur koo xamante ni sa doom sax day jàng ne ko ne bul jàng kaay ci lii ci kaw ñu defar ko rafetal ko ba telle sorte nit mën na ci am lu ne ci làmb nit mën am lu ci bon man dafa am loo xam dama ko gis fii ah, ci yéen mhm. te gis naa ko depuis bi ngeen lancé seen écurie bi mhm. wala mbooloo bi ni ngeen di àndee mhm. muy benn esprit benn esprit boo xam dafa nekk ci yéen est-ce que esprit boobu warul élargir dugg ci famille làmb yëpp ñëpp am main boobu noonu di ko doxee xam ne ce n'est que du sport waaw loolu dañ naan sant yàlla dañuy yàlla macha allah waaw santaat yàlla bu baax ba yàlla defal ñun mburu parcelle yëpp xëy na ñi ngeen di gis rek ñu ànd bi gën a rafet àdduna pour mu rafet mooy li may wax chaque jour rek mooy jikko yi yar gi am idée bu rafet. Mm. nangu nag ku nekk xam ne kii sa mag la nga jox ko cër. ki nga xam ne mooy mag tamit mu yërëm raq ñun noonu la ñuy doxee mu nekk nii xam nga jii tey euh, yàlla mooy mm. moo du la jiital si lépp. Mm. mais bu ko doxee woon wala mu waxee ko rek kon ànd bi day ñaaw ndax. dëgg la gis sa bopp am ñoo xamante ni seen bopp. nga xamante tey ñoo gën a féete kaw ñoo gën a wàcce seen bopp. ko defee affaire bi yomb affaire bi day yomb ba telle sorte ba nga xamante ni daal ah dinaa sant yàlla ci loolu daal ñu sant yàlla di wax ne daal làmb gis nga làmb kenn mënul xañ sa wërsëg morom ku ne sa wërsëg ngay lekk mhm. ku sa wërsëg jeex rek da ngay uti leneen te yàlla day ubbi beneen buntu feneen nga dem def leneen mhm. ba tax na daal ànd bi daal nan ñaan yàlla daal ñu ñaan lañu yàlla ànd bi gën a rafet ànd bi gën a rafet mhm. ñu nit ñu gën see góorgóorlu ñu ne ndax seytaane seytaane mënul nen jesneer mm-hmm. lay sol mm-hmm. parfum bu neex yor téléphone iPhone 14 lay yor mm-hmm. yor xaalisam nit la <laughs> yor otoom bu neex yor otoom bu rafet <laughs> buñ déglu buñ déglu ñooñu wala koo xamante ne tey amul dara laa ñam rek la am bu ñu déglu ñooñu nañ rafetal suñu ànd rek looloo am solo est-ce que ànd comme nii ba tey ci esprit bi may waxee ba tey ci luy yokku làmb Papa bu ñu seetloo ay promoteur ñooy tëgg làmb waaw Papa Sow ak Siteu war ñoo mën a tëgg seen làmb ñoom ñaar ci bopp waaw waaw loolu nag esprit la loolu dana jafe trop ndax da ngay def nii sa benn mbokk naan la moytul diw. blouson bi ne mu wax boobu laa ah, bëggoon nga wax ko moytu wante boobu waaw bi nii. waaw dee ne man damay gis ñuy moytu lépp. mais million bu génne duñ moytu million bi million boo ko waxoon ko si boppam. xaalis bi lañ koy moytu duñ moytu leneen li mais loolu tamit il faut nit ñi nekk ci ay nit. ki naan oh. la ki naan la moytul blouson bi. waaw du la jox 100 waaw mbër mi yoo tamit bu naan la moytu li nga koy moytu te bu ne la xaalis baa ngi nii fu mu nekk nga jëli ji ko. waaw ah, yow it war nga nekk nit. ku dul yàlla neen nga. ku mën a ku mën a yàq rek war ngaa man defar. Mm-hmm. yàlla rek kay rek kay matale. yàlla kase kasee matale. kenn mënul faqasal kenn li yàlla rëdd sa jëb yi allah kulli yàlla muy nii muy ne da nga ciy jot. mais esprit bi ñu am rek moo tax mooy loolu ay ay flamose rek tëgg ay combat. Mm-hmm. moo ñëw waxaal moo ñëw waxtaan ak yow. wax ak yow adversaire ngeen toog hôtel moo paka yaaw waxtaan. gagné si ay milliards. mais mmh. Sénégal moom mooy loolu. Sénégal moom esprit boobu mooy il faut ñu changer loolu man de ma gisoon mbër mu bëgg a tëgg sama combat ak man du ma ci xaar kenn. Mmh. wallaay azim billaay wallaay. nga fay ma lu ko jaar dañuy bëri ba tëdd ci suuf foo ma woo ne si contrat am na damay ñëw. aw ma lu ma ci arrière aw ma ci arrière pensée xam naa ne du yàgg yàgg yàgg yàgg ba yaaram dugg ci géew bi di ma jàppal tànk wala di ma dóor. déedéet su ma entraîné wul su ma entraîné wul tegu ma ko si yoon su ma demee dañ may duma. Mmh. su ma deful nangam nangam. mais boo xamee loolu lépp da nga koy préparé boo duggee si kër bi def fulaak fayda ku la dóor nga fay wala balaa ñu laa dóor sax nga dóoree. Hmm. Ah, balaa ñuy bëre nga bëri dem ñibbi. cinq minutes combat bu ndaw dix minutes bu mag loo ci wax. ah man de gisuma si benn inconvénient MMA moo MMA moo gën a tar cinq minutes la lay defal xam nga li ñu war a wax mbëri nañ jegante combat rapproché salaamaaleykum loxo yi laalante arbitre sifflé ñu laatu ñu bëre. amul ku mën a bëri dix minutes na ngay wax dëgg la. Hmm. enseignement amul fenn amul ku mën bëri ku a bëri ñëwul ñu wax. amul bëre dóor këtëng këtëng dugg wàcc génn door ma fayu nangam nangam. ñu ko fi def ñëpp une minute wala 45 secondes nga gis ku nekk taxaw xool sa morom. amul. Ah. amul amul amul ku ko mën. lutte olympique moo gën a métti da nga def 3 noppal une defaat 3 lutte olympique moo gën a métti te 3 minutes ngay def. te action sur action ngay bëree. action sur action nit da ko mën. déedéet nit mënu ko nit mënu saa yi jeexee gis nga ki dee tëdd fee ki tëdd fi mhm. macha allah waaw. Ah. am na solo papa loo bëggoon a wax te laaju ma la te nekkul sama xel ci ma laaj la ko waa ñi jaajëfal ñëpp rek xam nga lu mel ne samedi nga bàyyi gars yi bàyyi sa yëpp ñëw mm-hmm. la Ah, mais di jaajëfal rek. Hmm. di jaajëfal sunu grand yaa mi ngi toog. père yaa. grand jili mi ngi ne toog mi ngi ne soog ci ginnaaw moom ah. di jaajëfal waa parcelle di leen wax ne combat bi nag dimanche suba bu dellu soirée incha allah rabbi. mais il paraît combat bi moo tax nawetaan doo am ci jour boobu parcelle. waaw waaw loolu lu ñuy rafetlu la li ñuy la moo tax Diouf président Diouf ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ko jaajëfal ak président Waxaab ak sportif yi nekk parcelle yëpp quoi ndax initiative bi macha allah rafet na quoi. ñu leen jaajëfal di woo nag parce Assainies 1 ba 26 waa Cambérène waa Fadia waa Grand Médine ah Yoff Fass Colobane Médina Gueule Tapée waa Grand Dakar ñaari nag nee na leen waa Big ñaari tali ñu ngi woo ñëpp quoi waa secteur wuy leen ñu ngi leen di siyaar yéen ñëpp nag Saalum leen woo ci combat bi ah di woo diaspora bi ah. ku ku lim waa Espagne maam lu bare bare Grand Boga Nice Serigne Saliou ah waa waa Argenté ah waa Argenté mafia Argenté bi yëpp ah ay Umberto ah ñoom Umberto <laughs> gars yi ñu ngi jaar ñëpp ku lim da ngay juum ah fu fu kuy bëgg paas rek xel day fatu rek ñu ngi lay jaay fi di la bëggal quoi. ñu ngi lay bëggal lu bëri dox ne nañu sax ñu sàqu ñaan si ñëpp. ba dimanche incha allah heure bii <laughs> parcelle yëngatu incha allah. waaw keroog Siteu bu ma la yeewee. Siteu du yeew kenn dafa yor buum. <laughs> Ah, Siteu du yeewu kenn. bu ma la keppee baa yow la. waaye Siteu ku muy kepp Siteu yorul tëñaat yorul buum du kepp kenn naan lan bu ma la am na lu ma xam am na benn am na benn bët bu mu wax su ma la am na lu am na benn moo su la jàppee non non am na benn mot sama waa kër moom lay may tooñee quoi sama Moustapha daf may romb rek wax ma waaw sama tàppee de. bu ma la tàncee. bu ma la tàncee. bu ma la ma ne ko ma bëgg nga naan bu ma la tàncee. ma la bëgg ba nga Papa wax na lépp d'abord xam nga <laughs> làmb la. làmb bu ñu waxee dafa war di boole waaye warul tàggalee li may wax chaque fois. mbëri làmb moo leen boole pour tàkku saan bi bu jeexee. Mhm. ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ku ci nekk li nga yéene sa bopp moom nga yéene sa moroom mhm. euh, mbër boo ci wax mu ne dama bëgg dimbali sama waajur. defe naa ku baax ku ne loolu la bëgg ba tax na làmb kaf la foo ak ree ñu koy wax supporters yi nañu ñëw ku ci nekk ànd sa mbër supporter ko ci jàmm. isam la lu mu fa jëlee ngeen àndu yaru dem mhm. waaye ñun ñoo yaan ñaan incha allah parce que jour boobu yàlla may ñu ndam ci combat yi ñu am yëpp nag incha allah waa waa Sénégal ñoo ma yóbbante ñu yow da jël couronne bi bëgg a bàyyi bëre lan la <laughs> na yàlla waaw ku ma gisee ne xam ne mooy lool lu bëgg a bàyyi doo ci doo ci mel ni waaw <laughs> yaa ci lan ñoo ngi ci entraînement yi xam nga nekk ci ginnaaw papa ak gars yi nekk parce que yëpp di pare combat di ñaan yàlla may ñu talak fekk rek ba le six incha yàlla mi may ndam may ñu ndam après rek ñu soog a wax ñun suñu bas mais ñun incha allah ñoo ngi ci ñoo ngi ci. mais noo ñu expliqué ko ci leneen. waaw mais xam nga comme moom li may wax chaque fois rek nit li ngay liggéey lu nekk ci loolu di dal c'est la première fois. defe naa loolu dal ma ci làmb. waaw muy dama blessé isam ndax. waaw ba opération. loolu moo taxoon xam nga ma xawoon xam nga nekk sama ruq quoi nekk ci li mu war a nekk. Mm. mais alhamdulilah yàlla def na tan ba ñawaat naa. Mm. xam nga instant yi papa mu ngi pare ak booyu parcelles yépp mm-hmm. ñu nekk seen ginnaaw. Mm-hmm. incha allah bu ñu paree ak papa yàlla may leen ndam ñoom Franc topp yi ñeneen ak ñeneen góor incha allah fekk ñun ñu jàppale suñu suñu suñu date incha allahu taala. Mm-hmm. yaa ngi jox rendez-vous adversaires yi co euh, supporters yi. incha allah bu soobee yàlla. le six di nga ñëw làmb ja. ah suñu bëgg-bëgg la parce que xam nga <laughs> comme li papa wax rek ki ko tëgg. waaw la di suñu morom. waaw dégg parcelles yi sam lax di jàppale làmb. ba tax na tey waxuma la parcelle képp kuy nit ku bëgg lu baax da ko war a jàppale. waaw parce que dafay dafay dafay créer emploi. Mm-hmm. tey jeunes yi ñu ngi fii ñu bari liggéey ñu am ñu métier tey mu jox ku ku nekk mos dara. Mm-hmm. loolu defe naa xam nga képp kuy nit ku bëgg lu baax da war a ñëw jàppale ne ci ginnaawam. Mm-hmm. làmb yi ñoo ngi jox ñëpp dig daje la si incha allah làmb ji teel a fees xam am làmb fair play. xam nga làmb daal yëkkatiwaat ci kanam. incha allah combat bu ndaw cinq minutes combat bu mag yow yow yaa ngi avance dix minutes doyuñu bëgguñu dix minutes de. dix minutes ñun yaa ay vingt quarante minutes lañ bëgg. dix bu saf affaire la de. <laughs> parce que waxuma la dix minutes bu saf waaye dix minutes bu la de. ah yaa nga wax yaay ngi fii di mbëkkante ah. <laughs> nga ne xaw ma mbër fi waxati lar. dama baal. <laughs> saa waay gis nga deux minutes cinq minutes. combat bu tar wallaay boo ko bëree di nga xool ci ginnaaw ndox borom ku yor ndox nekk fa ku la tegaloon un ndox da naan ko jox ma ndox bi. kon mbëri d' nañ ci cinq minutes beeg dix minutes bi. non pas d' accord ci nag. kaw xam nga mbëri yu bëree. bëree ok waaw nga ku bëreewul ñu avertir la. parce que comme ni ñu wax cinq millions. cinq mi cinq minutes. waaw kon Badou damaa war a jot cinq millions. <laughs> bariwul wax dëgg yàlla. xam nga mm. mbëri mën nañ ci def fulla ak nag. boobaa résultat ci mbëri yu mag yi dix lu nekk mën na ci xew bu affaire bi safee. Mhm. dix minutes la mi-temps. Mhm. après encore dix minutes encore waaw loolu lu ne xaj na ci. na lu ne xaj na ci lu ne xaj na ci. jërëjëf. eh papa. Mhm. dafa tere kuy ñëw ci làmb te du identifier sa kanam. cest diir ngay ñëw te sa kanam du feeñ ñi kagule wu. te sa combat bu mujj indi nga ñu kagule wu woon. bi yoon nooy def <laughs> da indi kagule wala. <laughs> waaw ça dépend rek xam moom réglement réglement règlement rek quoi règlement moom dañ koy apporter mais bon pour man tamit euh, ki nga xamante ni moom moo Modou Mbaye maa indi ci làmb ji. waaw ku kagulee tamit ñëw sama cumukaay la mu fa def it dana fa far dal sama kaw. ok paasaw bu ñu nekk kagulee wu kooku la mu fa def paasaw la. ci kaw papa la war a dal paasaw la war a dal. ok mais jarul xuloo jarul man gisuma ci xuloo gisuma ci xeex. ci mhm. nii la bëgg a mel dafa bëgg kagulee wu. ndax kàggulaw xëy na nag moom loolu la gis mooy mooy moom la. Mhm. ndax man moom pour man man man man ku ànd ak man dama see bàyyiwul xel kooku masque la soloon fu ma jumul. teel micro bi waaw. ku encagulewul moom ñëw ci ànd ak man damay jàpp ne da nga am bëri bëri yooyu ngemb damay def attention ci yow. ok ndax moom fu man moom boo dama engagé wu. waaw xaalis fay la jarul jarul lëbëtu ndax fii moom sa waay gis nga kenn du fi yàlla. kenn du fi yàlla billaay wallaay kenn du fi yàlla. Mhm. yàlla rek kay may ndam keneen mayewul ndam. koo mhm. ñaan naan la ah nan ñaan ci yàlla yàlla kasee may na dañuy sawul rek mm-hmm. man loolu laa gëm goo ne ndam dafa nekk ci loxo doomu aadama amul mm, mm. amul yonent bi fi gën sax ki mais kenn du ñaan si yonent bi yàlla rek ay maye mm. bon ba tax na daal man te ñi xam ne endono encagolé aussi nan nan oyofal affaire yi ñëw dini seen encagolé ñëw def li ñu def dem ñibbi ay doomu aadama lañ <laughs> macha allah ah, ay doomu aadama lañ ay doomu aadama lañ mën ñu weesu ay doom dañuy lekk di naan di am naqar di am bànneex di am métit di am xam nga waaw na na waaw na yomb rek affaire yi ah. méttiwul ko Modou yow Modou Modou ama woon ay kagul yow Modou moom oh, man mosuma am kàggu man moom kuy nëwru du ànd ak man ah non mais leer. Uh-huh. man ba ma ba ma déggee décision boobu déggoon na ay polémique yu bari am ci. waaw tu as compris. waaw mais ay ñëw lamb di kàggule sax dafa wóorul isam la. Mm-hmm. ñëw mën nga fa def njombe kenn mënu la identifier. ku def loo wóolu doo fi nekk di làqatu. waaw man sama gis-gis laa la wax. kii def li nga xam ne yow wóolu nga ko doo fi nekk di làqatu. Mm-hmm.